d'abord maa ngi euh, grum euh, di gërëm presse c'est mobilisation di grum le directeur de l'école nationale supérieure des mines et de la géologie ñu xamee un petit ci turu IST institut des sciences et de la terre des sciences de la terre euh, Mohamed Djinn, ci dalal bi mu dalal ma est ci l'École nationale supérieure des mines et de la géologie mu nekk un barab bu mais barabu tàggat bo xamné dañ fiy tagaté ay ndaw Sénégal ñu nek ay ingénieurs yo xamné ne dañuy yëngatu ci lépp luy jëm ci les géosciences te mu jëm ci souci si xam ay hydrogéologue la dox yu nek ci suuf mo ñoo xamné xamné ci métier wu mine la ak géologie da comme ni euh, monsieur le directeur waxee école bi dé formé na ay doomi Sénégal yu mag yo xam ne occupé nañu ay station yu gëna mag ci réew mi et ci administration comme ci secteur privé dans le domaine minier kon barabu xam-xam la waaye nak li tax ñu ñëw fi mooy ànd ak ñoom liggéey parce que ñun tamit kërub liggéeyukaay lañu yor boo xam ne mooy gérer alalu réew mi nekk ci suuf si di ay mbell ñu koy wax ressource minérale muy SOMISEN nga xam ne mooy société de patrimoine de l'État

amal njëriñ Sénégal su ñu nee mine yooyu amal njëriñ Sénégal nag mooy objectif mooy souveraineté économique mooy réew mi moom boppam ci koom-koom te pour réew mi moom boppam ci koom-koom mooy réew mi dafa war a compter ci ay ressources am mais réew mi dafa war a orienter ressources yooyu vers ay priorités moom te loolu nag mooy bu ñu nee industrialisation dafa war a am naka nañu war a fexee ba fer bi nekk Falémé naka nañu war a fexee ba fer bi nekk Ololdu mu permettre ñu am une université de naka la fexé ba lithium bi ñuy bu ko bu trouver ko exploiter dans le cadre de la transition énergétique pour fabriquer des batteries pour voiture électrique nga xamné ne bi lañ soxla Paris trouver à travers sa compagnie nationale. naka fexé ba ressources minérales yi mi compagnie nationale am tiré profit ci def ko ci gafaku réew mi pour financer le développement moo tax le président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar fay ak élimaanu jëwriñ bi di premier ministre Ousmane Sonko seen gis-gis ci réew mi ak le ministre biram Souleye Diop ministre de l'énergie du pétrole et des mines mooy ressources naturelles yi dafa nekk levier maanaam ci loo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour dajale alal pour réew mi lu ëpp ci li muy dépenser muy compter ci ressource am balaa muy dem jéggaane leneen wala muy lebi keneen wala muy ñaan ndimbal feneen li ci tegu aussi mooy xam nañ ne mbay mii pour souveraineté alimentaire am maanaam li ñuy importé ay milliers de milliards ci ay dund pour souveraineté alimentaire am il faut ñu maîtriser les intrants te buñ ko waxee nag wax engrais te engrais boobu nag phosphate yi nekk ci réew mi nga xam ne ressource bu historique la ci réew mi yàgg fi naka nañ ko war a orienter suñu objectif ci mbay nag buñ ñëpp xam nañ ne engrais bi du dara lu dul NPK la scientifique yi xam nañ ko acide phosphorique bi la bi nga xam ne ci phosphore bi la euh, ak li nga xam ne mooy potasse bi nga xam ne dañ koy dañ koy importer ak urée bi nga xam ne sax yeneen compagnie nationale ku mel ni Petrosen ñu ngi ci am projet te loolu gaz bi mën lañ ko permettre donc réew mi am na matière première yi tax mu mën a am une maîtrise sur le plan industriel pour dem vers l'agriculture boo xamante ne daf ñuy jëriñ li ci tegu aussi mooy naka nañu war a fexee ba secteur BTP construction infrastructure nga xam ne demande bi mu ngi yokk alors que minerais yi ñuy utiliser di ko jëlee ci suuf si di ko tibb lu mel ni basalte bi mu ngi en cours d'épuisement naka nañuy war a xoolee lu ñuy wax les minéraux de substitution lu mel ni silex bi lu mel ni argile bi lu mel ni grès bi ak beneen minéraux ñu expérimenté lu bees gëstu pour am ay tabax ci BTP ci infrastructure publique ay tabax ci dëkkuwaay yoo xamante ne matière première bi d'abord dina disponible muy approvisionnement ñaareel bi mooy dina yomb ci njëg bi ci sénégalais yi pour dëkkuwaay yomb mais ñetteel bi dinañ tabax tabax yoo xam ne yu baax la yu durable la yoo xamante ne respecte na environnement bu ñuy wax écologie loolu yëpp nag ay gis-gisu SOMISEN la te mu war cee taxaw war cee liggéey pour réew mi moom boppam mais war cee liggéey pour réew mi nag lu ñuy wax projet boo xam ne Sénégal prospère souverain juste dans une Afrique de progrès de pro en progrès loolu nañu bëgg te loolu nag pour nag mettre ci l'accent il faut que doomi sénégalais yi ànd ak ñoom xalaat loolu def ay projections dans le long terme def programme bu leer boo xam ne ne ñoom ñoo ñuy xalaatal loolu si ñoom nañuy compter ci gëstu loolu si ñoom nañuy compter ci xalale yi tax ñu mën a liggéey loolu mu nekk fii kon école bi état bi ñu ko fekk dinañ ci waxtaan ak autorité yi te incha allah dinañ def tout ba gëdd bi mu a am mu am ko pour mun ñu formel ay junni junni ndaw yi Sénégal yoo xam ne miin yi ak géologie dinañ ñu ci mun jàppale bu baax muy gëstu ressources yi ak ànd ak sénégalais yi jëriñoo ko comme ni ko article vingt cinq tiré bu constitution waxee que les ressources naturelles appartiennent au peuple ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm.